collectif pour la libération des détenus politiques ñoom dàmbo ca niki démb lu ñu yëkkul Macky dañu ko fàtte nee nañu jaaykatu doole la ndax ñi nga xam ne jàpp nañu leen dugal ci kasu bi tegu ko fenn lu jëm ci njàng meeg njàngale mi conseil interministériel boo xam ne gouvernement bu Sénégal def na ko ci ci lu jëm ci wàllum ubbite école gi 2022 jàpp 2023 gouvernement bu Sénégal nag bëri na ay mesures yoo xam ne jël nañu ko waaye nag bi ñu xayma lu toll ci 244 écoles yoo xam ne jamono ji dafa fees dell kom ndox am na lu toll ci 5570 écoles yoo xam ne clôturé ko toll ci 2793 écoles yoo xam ne amuti toilette yéen kaay gi de la Soleil nee na lu jëm ci conseil interministériel bi nga xam ne def nañu ko ci lu jëm ci wàllum ubbite école gi état bu Sénégal tamit fas yéene naa nag suivre li nga xam ne mooy accord yi mu jot a signé yéen kaay gi de nee na jamono ji nit ñi ñoo ngi faatu comme weña lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar ci nit ñoo faatu ci benn semaine yéen kaay gi nee na nag fanweer ak juróom-ñaar ñooñu nga xam ne ñoo faatu semaine bi am na si ñoo xam ne ci accident la na si ñoo xam ne ay kër ñoo daanu seen kaw waaye am na si ñaar ñoo xam ne géej gi moo leen rey yéenekaay gi di Les Échos xëy di ñu xibaar naan ñu doomu ministre Mariama Sarr da doon dawal ab oto ci VDN bi daal di mbëkk koo xam ne ab moto la yoroon ba pare daal di naani kani maanaam daal di daw ndax gars yi dañu ko mujjoon topp bi ñu ko tegee loxo nag dañu ko garde à vue ci police bu jëppal yéenekaay gi di Libération nee mujj gi dañu ko mujjee libéré ci convocation altine li wuy jiwaat ndax pression bu mag la ñu tegoon ci kaw ñi nga xam ne ñooy enquêteurs yi ki nga xam ne nag mooy doomu Mariama Sarr ministre bi oto bi mu doon dawal oto présidence la waaye nag bii duñu wax moo nekk ñaareelu yoon boo xam ne moom mi toppee nañ ko njombe yu mel nii ki nga xam ne nag moo yoroon moto bi ñu mbëkk ko jamono ci ma ngi ci diggante dund ak dee yéen a kaay gi di estat xëy dañu xibaar naan ñu tey jii ci Angleterre Premier League am na ñaari match derby benn bi diggante Arsenal ak Tottenham bi si des diggante Manchester City ak Manchester United yéen a kaay gi di sunu lamba nee na face à bi nga xam ne moo doon am diggante City ak Papa Sow face à face ba na jër City nag nee na Papa Sow dinañu xeexee bu métte métte Papa Sow na ko loolee mënut a ñàkk société nationale